institution sénégalaise yi dafa sacré te duñu may kenn mu di ko salfaañe loole la ñuy dégg saa su ne moo ne day ñi nga xam ne ñoom ñoo war a incarner yooyu les institution ñoom ñoo war a njëkk a xoolaat seen taxawaay yi fexe rek ba mën a ràññaatle responsable politique gi ñu doon ak membre institution boobee nga xam ne ca la ñu bokk dina tey xel nag bu ñu demee ba ay réunion parti politique ñu di ko amal ci biir palais de la république dina doy waar itam ñu gis kenn koo xam ne daanaka jëf ju ñaaw la def ay naataangoom ba muy nekk ci opposition dal di sàcc seeni document de parrainage ba noppi ñu dal di koy dalal comme buur ca palais la république loole itam tey na xel xel mënuta nangu itam ñu toll tey ci réew moo xamante ne ca pencum ndaw réew ma ay député wu parti bi la ñuy wax wala député coalition bi lee mu mel ni askan wi dañu ko dal di beddi teg ko na lee lu mel ni ab ministre de la justice bi nga xam ne daanaka xam-xamam dafa màcc ci wàllu droit ñëpp ràññee ko ci université yi mu taxaw nag ñaari kàddu yu waroo ci benn sujet loole tey na xel sa Seck di njiitu parti am ay kàddu yu mu yëkkati lépp ci keppaaru politique ñëfarul ak moom bëgg ko tontu au lieu que ñu jaarale ko ci terrain politique ñu ñëw ba ci biir conseil économique social et bi nga xam ne moom mooy ñetteeli institution wu Sénégal ñu di ko fa indil tontoom yooyu les conseillers daal di buddee réunion bureau bi ngir fësal seen naqar ci ay kaddu politique yoo xam ne Idrissa sa yëkkati na ko ci kepparu politique respect nag suñu ko bëggee ci institution faaw ñee jëmmal boobule institution respecté seen bopp ba noppi ndax nag ude na mu la gisee rek noonu lay ëwal